ngi ak le grand champion Ousmane Diop grand baa ngi lay ziar. ñaa ñu ñu lay delloo ziar baax a baax. waaw yaa ngi si jàmm. ñu ngi sant yàlla bu wér a wér. man li tey caaro yëngu na. waaw caaro moom ci yëngu la too ci yëngu la nekk chaque jour day yëngu rek xale bu fi am combat rek mu yëngu day yëngu toujours waaw. ma bëggoon ñu waxtaan tuuti dellu gannaaw sa diggante ak Balla Gaye combat bu metti ba combat bu neex ba amateurs yi namm nañ façon combat yooyu. waaw non loolu loolu doon fi gaaw la mais léegi bërekat amul mbër fi am mbër ak bërekat bokkul. bërekat amatul. mbër moo fi am. mbër mooy gudd rëy rek ni mbër laa mais bërekat du yor yenn poids poids yi te booba Balla Gaye day bëri may bëri ba yàlla def li mu def yàlla may ka kon nga xam ne kon ndaanaan la moom mais booba dafa dajeeg ndaanaan rek ndaanaan si kaw ndaanaan la ñaari ndaanaan doon bëri benn ndaanaan bi daan benn ndaanaan bi waaw. bu ñu ñëwaatee ci combat bi nga décortiquer ñu ko à Bosé de arbitre soufflé kenn ci nekk déglu sa morom tuuti. pour maag Balla Gaye waaw da doon déglu rek après mu sànni ko suwaal ma dem jàpp ko xam nga bi ma ko jàppee après ma sa ma sànni ko mu dóor ma tànk ma sànni ko mu def rotation génn jàpp sama ngemb ma daw daan ma waaw. jour boobu bés boobu lan moo la manqué woon. non dara mbiru sunu borom a ñëw xam nga sunu borom moom lu am rek moom la seriñ bu ñaan sëriñ bu ñaan mu nangu rek sunu borom la kon nag sunu borom a ko jox dana boobu. mais est-ce que Balla boobu ak Balla bi tey jii benn la. waaw non benn nag àddina moom da ngay nekk si neex na ba si yàgg dolof dolof ñëw mu dolof dolof ñëwee da nga koy nangu tourné waat ginnaaw di defaru mi ngi tourné di defaru yàlla ko yàlla wéral ay jërëm sàmm ko sàmm ak njabootam ak mboolem jullit ba yàlla indiwaat ko si làmb jàmm ak salaam waaw. mu jëm ci bu mag digganteem ak Gris Bordeaux ñu bëre woon premier combat war a bërewaat deuxième combat. waaw ñoom ñaar ne woon naa leen koosoon nan ko wax ñoom ñaar ñëpp bu boobaa bu ñëwee dañ ko conseillé ci ku muy métti waaw. ñoom ñaar ku ëpp bëre. ku ëpp bëre loo xam nga nit ñi a nax ndax Balla Gaye moo ëpp bëre Gris Bordeaux Balla Gaye moom moo ëpp Gris Bordeaux bëre yàlla nag moo xam mais Balla Gaye moo ëpp bëre daal. mais njëkk bi loolu feeñul de Gris moo ñëw andi bëre. waa Gris moo ñëw indi xeex moo ñëw indi bëre Balla Gaye indi xeex par foogoon nañ ne Gris Bordeaux day xeex mu ne kaañ nga koos Gris Bordeaux war ko moo tax ci bëri la mujjee ba yàlla may ndam Balla Gaye ak waaw. ëpp doole. non doole moom mun jàppante nga am ko waaw ndax ma finalement ak ñoom. man ah, ñoom ñaar ñoom ay favori lañ. Gris def na bay na waaram Balla Gaye bay waaram. léegi dañ dajawaat ñoom ñaar si géew rek ba xam. jaajëf. jaajëf xew na bi. maa raw barke yaa rasulullah maa raw mais nag dama ñaan réew mi jàmm di ñaan Sénégal yàlla fi jàmm yàgg parce que lu jàmm jàmm ak gën parce que si réew mi kenn du ko yàqal ñu ànd ñu ànd sama sawoor la quoi ñu ànd yaa ngi dégg jàmm rek ma am solo yaa ngi dégg parce que si Sénégal si yàqee lii lay yàqu leen yàqu leen yàqu yaa ngi dégg te jàmm moo gën lépp quoi jàmm moo gën ay réew ko yàlla wàll di nga yor ko yàlla wàll di nga yor yàlla xañe que réew mi nan la ñu ànd daal réew jàmm bu yàq Sénégal réew teraanga la. yaa ngi wax lu am solo. waaw bu ko yàq quoi man d' accord ma violence eh, quoi d' waaw loolu la solo sànq laaj naa la ko ñu dellu gannaaw tuuti sa carrière sa diggante ak Balla Gaye borowoon ngeen ñaari yoon. yaa ko njëkk a daan mais teg ñu ci ay weer yu bëri. ñaari yoon nga ko daan wala benn yoon. ñaar da war a gën a gën a jël ñaari yoon laa ko daan ñaari ñaari yoon. benn ngoon. ma daan ko ñaari jël la wala kay fii la ñu ko teg fii. ba ngay may naan li jël la ngay bañ. moo tax baax ko dëpp. nga may ko revanche mu daan la. daan ma waaw changé wala suuf ma waaw. ñaari combat ban jàngat nga ci def. bëri na bëri na quoi trop. xam nga lam looy gën a dem jàpp ne teeloo ko woon a may revanche mën a woon a bàyyi ba ca kanam. non non looy gën a dem di gën a a xam kan kan yi lam leneen la quoi léegi looy gën a dem di nga xam paxa nag fu nga jëm jarul wax quoi noo pere de xam nga paxa-paxa yi fi mu naa ko léegi bu baax bu njëkk xamuloon nag. mais léegi xam nga obstacle yi. a def daf na ma ko man gars yi laal na ma ko tax bu xam naa lépp léegi moom alhamdulilah quoi waaw. kon daal fi mu toll nii mën nañoo xaar beneen Issa bu bees. bu bees pour incha allah rabbi waaw. Balla Gaye jëm ci combat bu mag digganteem ak Gris Bordeaux. waaw laa ma ji neex la. combat am neex la. cinquante cinquante la. cinquante waaw. foo teg loolu. cinquante cinquante la loolu xam naa ko baax. ku ne ma nga daam. est Balla Gaye ba doon bëreel ak Balla Gaye tey bii benn la. non du benn moom. man mooy différence bi. non bokkul xale ak mag bu ko Balla Gaye ñaataat ba diggante ñaataat. boobu xale waaw bokkul quoi. boobu day jàpp sa ndigg wandeelu juróom-ñeenti yoon. waaw bokkul bokkul. mais léegi mënatu ko. mais nit ki mënoo mën lépp bëgg a àdduna léegi la màgg léegi la màgg yenn yi mais nag champion la Balla Gaye mën naa daan ku ne waaw Gris Bordeaux tam champion la rek gërëm na gañ waaw. Gris Bordeaux ku ëpp doole. ñooñu naan ñoo tolloo doole moom. dëgg yàlla ëpp bëre. ñun na bëre. seen combat bu njëkk seetaan nga ko. naa ko bu baax naa ko. ku ci nekk la nga mën a sa morom jiitu la ci. waaw la bii ñu ñëwee day yomb. tax parce na lu ku ne am nga laale nañu. waaw bi combat bi combat leeral la war a def. combat leer daal combat daal kenn daawul dox ci biir. moo yoon daf ko daanoon par décision ordinale. ay décision bi am solo kenn daawul dox ci biir mooy yoon loolu mooy yoon waaw. kan mooy favori. amul favori cinquante cinquante la. waaw. mais dégg naa sànq ngay laajte franc. waaw mais franc sama gars yi ma ma daan ko. mais Issa sa franc dafa bare fu mu toll nii de. mais man man man man bëri bu nekk ni man. bëri bu nekk ni man am ku ma daan. dégg nga bëri bu nekk ni man laa wax. Ah. am ku ma daan. bëre bi nekk ci yow. waaw mais est-ce que doole ji mi ngi fi ba léegi. loolu maa ko jaaxal maa ko yéene am ba ba ab suul nga xool doole yom doole ku dee am ka doole ku dee nga am ma jafe xam-xam moo jafe xam-xam doole yomb am. yàlla nga def bi mi ngi fi doole ji dañ koy wutiwaat. dañ koy yokk ak doole yi yaat ka entraînement moom dara waaw. kon daal pare nga pour jël avance franc. su ma jafe ma jël ko mais xam naa franc du jël quoi ñu wax lu tax doo la da ngaa daanu. bu baax day bañ a. day bay daanu quoi loolu tax. soq. soq Franc soq Franc noo gisee combat. ah gën a mbapat quoi. Franc moo gën a. mbapat et puis moo moo a gaaw quoi. moo tax ah. mooy mooy may may xañe yàlla nga bu ko laa may loolu mooy làmb quoi àdduna am tey suba xañ la ah. techniquement. dafa violence dafa yegg dafa dafa xaw a yegg quoi takkee France si kaw da ngaa wëntu tànk làmb jeex. foo ko foo ko France àgg moo sori. takkee si kaw da nga wëntu tànk. moom soog. waaw si yoon. mais France dafa rasu. waaw mais non action daa a gaaw quoi action day gaaw waaye nit ki réfléchir daa war a daanu. mais nag yàlla moo dogal loolu mu war a daanu daanu quoi. dégg naa daan mbër nga la waru koo ëpp. moom daa war a gaaw nga daa war a benaan lii lu loolu la quoi waaw. jaajëf mbër jaajëf jërëjëf amiin jërëjëf